asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokki daare xam-xam ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare mboole mbokk yépp nu fas yéene dellu siwaat ak yéen ci sunu bind fanweer ci téere boobu di muxtasar cheikhul xalil di ñaan suñu boroom mu dimbalañu ci ñu war a tàmbalee ci faslun toog bii daf ciy wax lu aju ci wàllum suturaal awra hal chatru xawratihi ndax suturaal awram bi kasifin ci aji fatt wa in bi ixaaratin ak doonte ci ak abal la aw talabin wala doonte ci sàkku abal googu la aw najjisin wala donte yére yu am sobe la wax daxoo tamit moom rek muy am mu am yére yu am sobe rek ka xaririn ni ki sooy ni mu am yére yu am sooy rek yére sooy rek waxuwa ta moom yére sooy yooyu mu xaddamun lu ñu jiital la ci yére yu am sobe ndax loolu sartun ab sart la li salaati ñeel julli in zakara ndeem fàttaliku na ko wa xadarata mu man ko wa in bi xalwatin ak doonte ci ak wéet lay xilaafun yaari wax yu siiw danoo wute ci sutural awra ndax waajib la ci nit ki bu ko mënee fàttaliku ko te defu ko ndax julleem dana baax wala du baax am ñu ne waajib la su ko manee fàttaliku ko te defu ko su boobaa julli ga du baax mukk mukk mukk mukk wax jooju nag moom la ñu sukkandikoo am ñu ne déedéet sunna rek la su ko bàyyee julli ga dana baax nga xam ne bu ko mënoon fàttaliku ko te defu ko su boobaa julli ga dana baax waaye danañu bëgg ci moom mu baamu julli ga ca waxtu wa wax naa léegi nag na wax ji ñu sukkandikoo mooy soo ko mënee fàttaliku ko lay tax julli baax mooy faw nga sutural sa awra bu dee ñoom nag li ñuy suturaal awra gi dafay nekk loo xam ne lu fatt lay doon lu nekk lu yaraax loo xam ne ku ne jàkk rek di gis sa awra donte sax loolee ngay suturaal awra ja dañ la koy abal su boobaa sañoo bañ abal googu sañoo ko bañ a nangu danga koy jël daal di koy suturaale sa awra donte sax da ngay sàkku abal googu ñu abal la ko day war ci yow nga àbb ko bu fekkee ne wóor na ne la boo ko àbbee ñu abal la ko wala nga njort ko wala nga sikk sàkk ko ne boo ko àbbee ñu abal la ko kon su boobaa day war ci yow nga àbb ko donte sax la ngay suturaale awra ja dafay lu am sobe fekkee nga am yére joo xam ne yére yu am sobe la kese moo fa nekk kon su boobaa dangay sol yére yu am sobe dal di koy jullee waaye doo saña julli rek dal di def yaramu nen ni ki noonu bu fekkee da am yére yoo xam ne yére yi sooy la moom kese xam nga yére sooy dañ koo araamal ci góor mu sol ko waaye bu fekkee ne moo fa nekk kon su mom ngay sol dal di koy jullee bu fekkee da am yére yu am sooy nag am yére yoo xam ne dafa am sobe kon su boobaa yére ya am sooy moom ngay jiital ci yére nga xam ne moom moo am sobe donte sax fa ngay jullee ak wéet la am yow de yow yaa fa nekk di julli du tee suturaal awra jooju nekk waajib ci yow wax jooju moom lañu sukkandikoo waxiya moom awra min rajulin bu ci góor wa amatin ak njébéer muy jaam bu jigéen wa in bi shaibatin ak doonte ànd naak raxu ngor wa xurratin ak gor su jigéen ma imraatin bu àndeek jigéen ma mooy la nga xam ne bayna surratin nekk na diggante jumbax wa ruqbatin ak bati oom awra nag dafay ñaari xaaj am nañu wax al alxawratu almuxallasatu ak alxawratu almuqaffafatu maanaam awra ju ñàng ak awra ju woyof bu dee ci awray góor ak awray jaam bu jigéen ak donte sax jaam jigéen boobu dafa laal dara ci raxasu ngor mel ni jaam bu jigéen bu am ak ab sangam doom moom la ñuy wax ummu walad seen awra mooy li tàmbulee ci jumbax <clears throat> ba ci bati oom loolu mooy seen awra <clears throat> bu ku góor ki nag moom awraam ju ñàng mooy buntu suuf bi ak buntu sawkaayam loolu mooy awra ju ñàng ji ak li ko wër nga xam ne lu bokkut ak loolu ci awra ju woyof ji ci lay bokk bu dee jaam bu jigéen nag moom ay njëkkikaayam dañ koy boole ca awraju ju ji bu fekkee nag jigéen la nga xam ne julliwut dafa nekk ak ay moroomi jigéenam moom gor su jigéen si kon su boobaa li tàmbalee ci jumbaxam ba ci bëti oomam loola mooy awraam na ko sàng la ci des bu ko soobee mën na ko bañ a sàng bu fekkee ne ci ay jigéen kese la nekk bu fekkee day julli nag wala mu toog foo xam ne jàmbur bu góor mën na ko faa fekk dana ko wax ci kanam nga xam ne kon moom góor bu fekkee dafay julli feeñal dara ci awram ju ñàng ji kon su boobaa dafay baamu ba faw jàmbu jigéen itam noonu lay demee day baamu moom tam ba faw waaye bu feeñalee dara ci awra ji nga xam ne mooy awra ju woyof ji kon su boobaa dañuy bëgg rek mu baamu ca waxtu wa moom jàmbu jigéen bi dana ko leeral ci kanam wa ma ajnabiyin bu àndeek jàmbur bu góor xeerul wajhi mooy lu bokkut ak kanamam wal kaffayni ak ñaari ténq ya jigéen bu fekkee dafay julli wala mu toog foo xam ne jàmbur bu góor mën na ko faa fekk koo xam ne araamul seen diggante ñoom ñaar ñu sëy kon mbooleem yaramam yëpp yëpp da ko war a sàng bam des kanam ak ay téngam buy julli itam daa war a sàng yaramam yëpp ba mu des xar ak ay tëngam xar kanam nag ak ay tëng duñu awra tax boo xoolee sara bi nee na fal wajhu wal kaffaani laysa xawrat fa yajuusu laha kasfuhuma li ajnabiyin walahu nasruhuma in lam taxsha al fitnat fa in xiifatul fitnatu xaala ibnu marsuuxin madhurul madhabi wujubu shatrihima shatrihima wa qaala xiyaad laa yajibu satruhuma wa yajibu xaddul bashari xan ruyati nee na ak ay téng ñoom ñaar duñu awra kon dagan na ci jigéen ji mu bañ ko muur dagan na itam ci jàmbur bu góor bi mu xool ko bu fekkee ne ragalu fitna ca xool ga bu fekkee nag moom jàmbur bu góor gi dafa ragal fitna ca xool ba wala jigéen ji ragal ne bu mu ree góor ñi danañ ci am fitna kon ku ñu wax ibnu marsuq daa wax ne mazhabu malik daal mooy kon jigéen gi day war ci moom mu muur xar kanamam ku ñu wax xiyaat na déedéet du war ci jigéen ji kat mu muur xar kanam waaye góor gi ci jëm boppam day war ci moom mu damm ay bëtam bañ xool bañ koo xool ginnaaw moom moo ragal fitna moom moo war a damm ay bëtam bañ a xool wa amal ajnabi alkaafiri fa jamiu jasadiha xatta wajhiha wa kaffayha xawratun bi nisbatin lah bu dee jigéen ñi nag dafa toog ak koo xam ne ab yéefar la bu góor nekk ab jàmbur ci moom kon su boobaa mboolem yaramam wi yëpp yëpp yëpp awra la da koo war a sàng moom jigéen ji bam ba ci xarkanamam ak ay sax da koo war a sàngaale bu mu bàyyi yéefar bu góor boobu di xool awraam wa axaadat baamu na moom gorsu jigéen si li sadriha ñeel wuññi ab dënnam wa atrafiha ak ay catam bi waxtin ci waxtu gorsu jigéen si bu fekkee dafay julli dara ci ay catam di feeñ wala mu bañ mur muur ab dënnam kon su boobaa dañ koy digal mu baamu ci waxtu wi mel bu doon julli ak doxam di feeñ wala ay xasabam wala sax bit ci ndëggoom di feeñ kon su boobaa dañ koy digal mu baamu ci waxtu wi bu fekkee tusbaar ak takkusaan mu baamu leen ba keroog moxtaarum takkusaan di jeex bu dee timis ak ñu sopp ci moom mu baamu ba keroog jant bi di keroog fajar di fenk bu dee waxtu suba ñu sopp ci moom mu baamu ba keroog jant bi di génn bu fekkee nag dafa feeñal lu bokkut ak ay catam kon su boobaa moom gor su jigéen si dafay baamu faw wa tuxidu abadan li kasfi ma ada zalika wala tuidu li kasfi batni xadamiha wa in kaana xawratan bu fekkoon dafay julli nag moom gor jigéen si feeñal dara ci biir ndëggoom donte biir ndëgguli awra waaye du aajowoo di ko baamu donte awrata ka kas amatin ni ki wuñub jébbéer faxe seen lupp naka noonu jaam bu jigéen bi bu fekkee ne dafay julli feeñal dara ci awraam ju woyof mel ni mu feeñal ab luppam kon su boobaa dañ koy digal mu baamu ca waxtu wa bu feeñalee ab luppam wala mu feeñal ñaari luppam su boobaa dañ koy digal mu baamu ca waxtu wa laa rajulun du caageenu góor góor moom bu julli dara ci ay luppam di feeñ wala ay ñaari luppam su boobaa duñ ko digal mu baamu ca waxtu wa donte awra la waaye duñ ko digal mu baamu ca waxtu wa bu fekkee nag dafay julli dara ci ay njekkukaayam di feeñ moom góor kon su boobaa danañ ko digal mu mu ci waxtu wa ay njëkki kaayam bu fekkee ne dara ci buntu suuf bi wala sawukaay bi la ko wër bu ci dara feeñee moom kon su boobaa dañ koy digal mu baamu faw faw faw naka noonu jàmbu jigéen bi itam dara ci ay njëkkukaayam bu feeñee loolu daa bokk ci kaw ci awra yu ñàng ja kon su boobaa moom itam koy digal mu baamu faaw faw wa max max wa max maxramin bu àndeekum aramante moom jigéen ji xayru wajhi mooy lu bokkut kanamam wala atraafi ak cadya danga waxoon ne jigéen bu àndeek jàmbur bu góor daa war a muur yaramam yëpp ba mu des xar kanam ak ay tëngam bu fekkee nag dafa ànd ak koo xam ne góor la gum araamanteel koo xam ne araam na seen diggante ñoom ñaar ñu sëy kon su moom jigéen ji mën naa bàyyi xar kanamam ak boppam ak ay catam di tàmbalee ci loxo ya ba ca conc la loxo ya ca mbagg ma ba ca ba ci oom ya mën na koo bàyyi bañ koo muur moom araamante boobu itam mën na kaa xool mën naa xool kanamam ak boppam ak li tàmbalee ci loxo ba ca conc ya maanaam loxo ya ba ca mbagg ma tànk ba ca ba ci oom ya watara dana gis moom jigéen ja minal ajina bi ci jàmbur bu góor maa la nga xam ne yaraaxu dana ko gis moom jàmbur bu góor ba moom góor ga min maxramihi ci ab araamanteem jigéen moom liñ koy may ci góor duñ ko may ci duñ may góor loolu ci jigéen jigéen sañ na xool ci góor ga di ab jàmbur li nga xam ne góor gu di ab jàmbur sañ na koo xool ci ab araamanteem danga waxoon ne góor akub araamanteem sañ naa xool bopp ba ak dox ga ak loxo ya ba ca mbagg ma ak tànk ya ba ca bëti oom ya jigéen nag sañ naa xool ci góor goo xam ne ab jàmbur la da tàmbale ci bopp ba ak dox ga ak loxo ya ba ca mbagg ma tànk ya itam ba ca bati oom ya jigéen sañ na ko xool ci góor gu ak jàmbur te góor moom sañ te xool ci jigéen joo xam ne jàmbur la ci moom lu mooy xar kanamam ak ay tingam wa minal maxrami bu àndee ko araamante moom jigéen ja karajulin mu ngi mel ni ko góor max mislihi gu ànd ak moroomam bu fekkee ne jigéen ji dafa ànd ak góor goo xam ne ab araamanteel la su boobaa moom ku jigéen ki sañ naa xool ca aramante boobu lu bokkut ak la tàmbale ca jumbax ba ba ci bëti ndax da koo misaale góor ak moroomam rek xam nga góor ak moroom góoram buñ toogee kenn ku ci nekk sañ naa xool ci sa morom lu may la tàmbalee ci jumbax ba ca bati oom kon jigéen ji itam bu fekkee ne góor gam toogal dafay ab araamanteem mel ni baayam wala rakkam wala magam ju góor su boobaa mën naa xool léppam bam des la tàmbalee ca jumbax ba ca bati oom te bul fàtte nag góor gi moom bu toogee ak jigéen joo xam ne ab araamantel la moom góor gi lañ koy may mu xool ko ca mooy bopp ba ak ay catam mel ni doq ga ak loxo ya ba ca mbagg ma tànk ya itam ba ca bëti om ba li ñuy leeral foofu nag mooy duñ wax ne lépp lu ñu wax ne sañ nga koo xool rek sañ nga koo laal déedéet lu may rek ñu araamante buñ ne ñaar ñi ñu araamante la luñ wax ne sañ nga koo xool su boobaa kon sañ nga ko laal araamante gi nag moo xam askan moo ko waral wala nàmpaale wala goromaale yooyu yëpp bu fekkee ne lu ko ci waral rek suñ ne nangam daal diw mi moom diw mi ay araamante leen sañ ñoo say seen diggante sëy araam na seen diggante su boobaa luñ la wax ne la sañ nga ko xool ca ku góor ka wala sañ nga ko xool ca ku jigéen ka lu tey itam sañ ko koo laal waaye bu dee ñaar ñoo xam ne araamante wuñ nag moom luñ la wax ne koo xool du tax itam nga sañ ko laal hmm. kon daal boo bëggee takk loolu dangay wax ne yow góor gi jigéen joo xam ne araam na ci yow nga sëy ak moom sañ ngaa xool boppam aki loxoom ba ci la ak doxam ak baat ba ak ay tànkam ba ca bëti oom ya yow góor sañ ngaa xool ci jigéen joo xam ne araam na ci yow sañ ngaa xool ci moom loolu jigéen joo xam ne nag moom araamul ci yow seen diggante ngin say sañoo xool ci moom lu mooy xar kanamam ak ay téngam te sax boo ci ragalul fitna bu fekkee ne jigéen la nag moom bu fekkee jigéen ji dafa toog ak góor goo xam ne kum aramanteel la moom jigéen ji dana sañu xool ci góor gi boppam ak doxam ak baatam ak loxoya ba ca mbagg ya tànk yi itam ba ca bëti oom ya bu fekkee jigéen gi dafa toog nag ak góor goo xam ne ab araamante la ci seen diggante ñoom ñaar su boobaa naa xool léppam bam des nga tàmbulee ca jumbax ba ba ca bëti oom ya loolu mooy gàttal kon tere gi nga xam ne moom lañ la tere nga xool ko du rek ne ñàkk bànneex moo tax nu tere la ko donte sax xool ko mën nga caa bañ a amee bànneex mel ni nit bu fekkee dafa toog ak doom bu jigéenam lañ ko may mu xool ko ci rek la ci sañ xool lañ ko ci mayut donte sax bu ko xoolee du ci am bànneex du ko sañ xool tere nañ la ko rek tere nañ la ko wala tutlabu deful sàkku amatun ci jëbbeer mu jàmb jigéen bitax taxtiyati rasin ci muur boppam jàmbu jigéen deful sàkku ci moom muy muur boppam moo xam ci julli la moo xam ci ludul ak julli la nekkul warugar ci moom mu muur boppam soppuñu ko sax ci moom mu muur boppam lu bokkut ak boppam nag moom def nañu sàkku mu muur ko benn mu nekk waajib wala mu nekk lu ñu sopp ndax bu dee jàmbu jigéen la tàmbalee ci jumbax ak bëti oom day war ci moom mu suturaal ko lu bokkut ak loolu nag dañuy sopp ci moom mu muur ko ba mu des ab boppam bam des nag umu walat umu walat moom danañu bëgg ci moom mu muur boppam umu walat mooy koo xam ne dafa am ab sangam muy jàmbu jigéen bu am ak ab sangam doom kooku moom danañu sopp ci moom mu muur boppam li ñuy ci ne jàmbu jigéen soppuñ ci moom mu muur boppam moo xam ci ak julli la moo xam ci lu ak julli la dañ ko jële ci waxi omar radiallahu taala anhu moom omar sidna omar bu masaa gis jaam yu jigéen ñi di génn jëm ca marché ba di muur seeni bopp daf leen wax na leen da ngeen di nuru nuru lu ay gor leen di dóor na leen ndax da di nuru nuru ay gor yow ku ñàkk soxat solo gi yàlla kaaxe mooy ku ñàkk solo dañ koy firee ko soxor waaye mooy ku ñàkk solo gi waaw tax nag ñu wax ni kon soppuñu ci jaam bu jigéen muy muur boppam wanu di ba soppeef na satruha sutural awraja wa in bi xalwatin ak doonte ci ak wéet la ki julli wala ki julliwut ki julliwut moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam gor la moo xam jaam la sopp nañ ci moom fu man di nekk rek mu suturaal awraam nga xam ne sib nañu ci bépp jëmm muy muri awraam ju ñàng te fekk jenn ajo waralu ko ci béréb boo xam ne nag béréb bu wéet la moo tax ñuy wax waaye xam nga ne bu nekkoon ci béréb boo xam ne bu muuree awram nit ña mën nañ ko faa gis kon su boobaa day war ci moom mu muur awraam kon li ñuy wax mooy boo nekkee ci béréb bu wéet bëgg nañu nga muur sa awra ngir rus yàlla ak malaaka yi wali ummi waladin sopp nañu ñeel ummi walad wa saqiratin ak xale bu jigéen saturun sutura waajibun su aji war xalal xurrati ci gor jigéen ummu walad mooy jaam bu jigéen bu am ak ab sangab doom moom ak xale bu jigéen danañu sopp ci ñoom nu sutura wu ñu muuru muuraay gi nga xam ne moom war ci gorsu jigéen maanaam ñu muur mboolem aw yaramam bam des xar kanamam ak ay tëngam xale bu jigéen boo xam ne toll na ci ñu dugal ko ci julli moom tam danañu sopp ci moom mu muur mboolem aw yaramam bam des xar ak ay tëngam waaye loolu moom ak sopp rek lay doon wa axaadat baamu na moom xale bu jigéen bi in raxaqat ndeem jege naa kàllafe lil isfiraari ba ca gelga ka kabiratin niki mag intarakaan dem bàyyi nañu ñoom ñaar alqina am muuraay ga xale bu jigéen boobu ñu wax ne sopp nañ ci moom mu muur mboolem aw yaramam ba mu des xar kanam ga ak ténq bu demee ba jege kàllafe nag moom te defut loolu kon su boobaa danañu bëgg ci moom bu fekkee julli woon na mu baamu julli ga ca waxtu wa bu fekkee ba ak takkusaan ba moxtaarum takkusaan di jeex bu dee timis gee ba fajar di fenk bu dee suba mu baamu ba jant ba di génn moom xale bu jigéen boobu naka noonu mag mag moo xam gor la moo xam umm wala moom itam danañu sopp ci moom suñ bàyyee muuraay ga bu ñuy julli nu baamu ca waxtu wa kon moom mag mi bu fekkee ne dafa bàyyee muur boppam ca ba muy julli su boobaa danañ ko sopp ci moom moo xale bu jigéen boobu ñu wax ba bàyyee muuraay ga danañ sopp ci moom mu baamu ci waxtu wa du muuraay ga dong sax du muuraay ga dong sax maanaam bu bàyyee muur lépp loo xam ne dafa war ci gor su jigéen mu suturaal ko jigéen ju kàllafe kon su boobaa danañ ko digal mu baamu xam ne bu bàyyi woon la tàmbalee ci gannaaw bi jumbax ba jàllee ak bëti oom ya bu bàyyi woon ab dënnam wala ay catam su boobaa danañ leen digal ñu baamu ca waxtuwa wa ka musallin ni ki aji jullee bi xaririn ci sooy wa inin farada ak donte wéetoon na ak donte yére sobe rek la amoon aw bi najisin wala mu jullee ci yére am sobe daa danañu sopp mu baamu bi xëyriñ ci bu amee meneen naka noonu koo xam ne dafa julli woon sol yére yoo xam ne dafa am sooy gannaaw ba mu am yeneen yére yoo xam ne amut sooy nekkut yére sooy ak ki doon julli sol yére sooy gannaaw ba mu am yeneen yére yu bokkut ak yére sooy danañu sopp ci moom mu baamu bu waxtu wa jeexut naka noonu itam ki doon julli sol yére yoo xam ne dafa am sobe gannaaw mu am yeneen yére yoo xam ne amul sobe moom itam danañ ko sop ci moom mu sol yére yi amul sobe te baamu julli ga ci waxtu wa aw bi wujudi mutaxirin wala ci amuk aji laabal moom mi julli woon sol yére yu am sobe gannaaw ba mu am ndox mu mën a fóote yére yooyu laabal ko sol yére ya julli ca waxtu wa laata waxtu wa jeex danañu sopp ci moom mu baamuwaat julli ga ca waxtu wa wa in zanna ak doonte njortoon na xadama salaatihi ak ñàkk julleem wasallaata mu julli bi taaxirin ci aji laab donte sax gannaaw ba mu solee yére nga xam ne moom mooy yére am sobe julli ba pare ñu soppoon ci moom mu baamu mu fàtte woon ne moom kat julli woon na daldi sol yére yoo xam ne yére yu laab la yoo xam ne dara sikku ca mu daldi julli julli gu baax kon su boobaa itam du tee ba tey ñu sopp ci moom mu baamuwaat julli ga ndax ba muy julli julli ñaareel ga yéene woonu ko defare julli gu njëkk ga moo tax ñu sopp ci moom mu baamuwaat julli ga moo tax boo xoolee saraab mu ne fa yuxidu fi wala takfihi al ihaadatu al ula li annaha lam takun bi niyatil jabri wala xususiyatin lil musalli bi xaririn aw nagisin bi hadal xukm ñun àtte boobu nekkut ne dañ koo jagleel koo xam ne dafa jullee sooy wala mu jullee yére yu am sobe rek bal kullu man salla salaatan saxiixatan tuxaadu fi lwaqti fa nasiha wa salla bi niyati lfardi summa tazakkaraha fala tasqutu al ixaadata al waqtiyatu anhu képp koo xam ne dafa julli julli goo xam ne wér na baax na waa yoon digaloon ko mu baamu ca waxtu wa gannaaw ba mu fàtte ko julliwaat geneen julli goo xam ne gu baax la te ba muy julli daa jàppoon ne moom kat julli wutoon gannaaw ba mu fàtte woon ne moom kat julli woon na bu njëkk waaye julli gëm julli woon ko dafa soloon yére yoo xam ne wala julli googu yoon yoon dafa sàkkoon ci moom mu baamu ko lu tee itam ñu digal ko rek mu baamuwaat julli googu noonu ca waxtu wa wa amma man salla salaatan fasidatan ولزمتها الإعادة ولزمته إعادتها أبدا فنسي وصلاها بنية الفرد فتسقط الإحادة عنه إذ لا يشترط نية الجبر بها nee na képp koo xam ne dafa julli na julli goo xam ne koo xam ne daa julli julli xam ne julli gu yàqu la yoon wax ko ne ko da war a baamu faw mu fàtte ko nag daal di julli julli goo xam ne julli gu baax la kon su boobaa moom dootuñu sàkkat sàkkooti ci moom mu baamuwaat julli googu ndax julli googu yoon daa sàkkoon ci moom mu baamu ko ba fawoon kon ginnaaw julli na julli goo xam ne julli gu baax la kon su boobaa deesul sàkkooti ci moom mu baamu ko ndax duñu sàtt ne nit ki kat bu fekkee daal julli julli goo xam ne gu baaxul la buy julliwaat geneen mu yéene defar julli ga nga xamante ni moom mooy julli gu njëkk ga laa ajisun waxuma aji lottu sallaa goog julli na xuryaanan ngir mu may aji rafle wala xuryaanan di aji rafle nee nag koo xam ne dafa amutoon lumu sutural awram awraam yoon ko jullil noonu mu julli def yaramu neen kooku gannaaw ga bu amaatee yeneen juli yeneen yeneen yére yu mën a suturaale awraam kon su boobaa na moom duñ ko digal mu baa mu julli googu ca waxtu wa waaye wax jooju sukkandikoo ko wax ji sukkandikoo rek mooy ba tey danañ ko digal mu baamu ca waxtu wa ka faayitatin ni ki julli gu faat naka noonu ko xam ne dafa julli woon euh, julli goo xam ne da doon fay maanaam waxtoom jàll na gannaaw bu mu koy fay nag mu sol yére yoo xam ne yére sooy la wala yére yu am sobe daal di koy fay gannaaw bu nga ko fayee ba pare xelam dem ci ne moom kat julli gi mu doon fay yére yam soloon di ko fay yére yu am sobe la wala yére sooy su boobaa kooku moom deesul sàkku ci moom mu baamuwaat ko ndax baamu buñ ko waxa dañ ko daa wax ci waxtu wa te xam nañ kon julli gi waxto jàll na ba pare kon su boobaa deesul sàkkooti ci moom mu baamu ko kon defe naa mën nañoo taxaw foofu ba dellu si waat lu fi jub suñu borom la lu fi dëng itam ngeen jéggal ñu ko te jubbanti ñu ko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh